أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala nu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñu ngi def sunu dars bu mujj ci mbirum sëy ñu koy tënk ci benn tomb bu tudd nasaih mushtarak ay ndénkaane yoo xam ne ñaari wàll yi ñoo ko bokk wàllu ku góor ki ak wàllu ku jigéen ki ñaari wàll yépp ndénkaane yu tey yi kenn ku nekk dang ci am wàll ndax sëy aqdun wathiq pas-pas la boo xam ne kon niñ ko waxee léegi mooy dars bi biiznillah ay ndénkaane la yoo xam ne ñaari wàll yi ñoo ko bokk mooy ku góor ak ku jigéen ndax sëy pas-pas la boo xam ne bu dëgër la aqdun wathiq wa mithaqun ghaliz pas-pas la boo xam ne dañ koo fas ci turu yàlla dañ ko fas ci turu yàlla lañ ko fasee dañuy ba ku góor ki di takk ndaw saan ko dagane ci turu yàlla moo tax buum gi dëgër mithaqun ghalise maanaam pacte signature bu dëgër boo xamante ne yàlla nangul na ko ku góor ki ak ku jigéen ki kon fekkee ne loolu am na il faut munta ñàkk kenn ku nekk ci ñoom nga bàyyi xel ñaari mbir yooyu waaye doo ko bàyyi xel rek wal muhafaza alayhi foog ñu wattu ko wattu mbir yi bu baax a baax a baax a baax ci lépp loo xam ne dafa war a ñëw di fecc pas-pas boobu ñu façon ci kanamu yàlla pacte yooyu signature yooyu ñu dëgëraloon ci kanamu yàlla kon ku góor ki ak ku jigéen ki war na noo bàyyi xel waaye wattu lu koy yàq ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk nekk en garde balaa am luy ñëw di fecc buum yooyu ñu façon ci turu yàlla tabaraka wa taala loolu nag ci ñaari wàll yëpp la wala ahdu tarafayni ci ñaari wàll yëpp moo war ñoom ñaar ñëpp ñu ragal yàlla ci seen sëy kenn ku nekk ci ñoom ku góor ragal yàlla moom ci ay mbiram yi muy def ku jigéen ki tamit ragal yàlla ci li muy def kenn ku nekk ci ñoom boo xoolee yàlla ki nga nekkal doo ko lor loolu nag doomu ndeyi mbokk jullit yi munta nekk ci mer mënta nekk ci jéppi sa moroom mënta nekk ci mu soof la mënta nekk rek nga xulli say bët kenn ku nekk ñoom xulli say bët di xool sa moroom bët yoo xam ne li nga bëgg ci moom rek mooy gis lu manqué lu négatif rek nga bëgg a gis bëggoo gis lu positif loolu du nekk mbokk yi ñaar ñuy sëy kenn ku nekk di sajj xefam am yu muy jéggale am yu muy jëllale ci ay njuumte ak ay manque manque kenn ku nekk fa nga sajj sa xef jéggale jéllale ci yenn manque manque yi léeg-léeg góor tarxiis ku jigéen ki xam ne kii tarxiis na mu jéggal ko jéggal jéggal ko jéllale léeg-léeg tamit kazalika ku jigéen ki def ko ku góor ki xam ne kii dafa tarxiis tey mu jéggal ko jëllale ko waaye mbokk yi njuumte yooyu bokk na ci loo xam ne mënta ñàkk ci sëy foog mu am ndax jàll man laa yàqta kenn dong moo dul juum mooy borom bi tabaraka wa taala ñaar ñuy sëy kenn ku nekk nga jéggal sa morom jéllal ko waaye wa xusnul zann bi sharikihi farak foog nga rafet njort ci ki nga nekkal ku góor na rafet njort ci jabaram ndaw si tamit rafet njort ci jëkkëram ñaari nit mënuñu sëy kenn ku nekk amoo confiance ci sa morom soo amul kóolute ci nga ki ngay sëyal sëy bi du yàgg du dëgër du baax fal muminu yatlub al maadir wal munafiq yaltamis azallat ñaari nit a ngi ni ci seen sëy nuroowuñu bu fekkee ki gëm yàlla moom chaque jour dina nangu ngànt bu jóge ci soxnaam wala jóge ci jëkkëram ndax moom dafa gëm yàlla bu fekkee naafeq nag moom manqué manqué yi lay xool ak tarxiis yeeg tolof tolof yi moom yooyu lay xool amma jullit moom dina nangu ngànt dina nangu manqué manqué yi moo xam jullit boobu ku gëm yàlla googu ku góor la wala ku jigéen bu dee naafeq nag moom sooy sëy ak moom du xool lu positif négatif rek lay gis wal muminu yafrahu li faraxi axiihi ki gëm yàlla dëgg day kontaan su mbokkum jullitam kontaanee boo amee soxna mu am mbégte danga war a am mbégte mu am naqar nga am naqar bokk na ci léeg-léeg liy yëngal sëy yi nga nekk ak sa soxna mu am mbégte mbégte boobu doo ko bokk ak moom sama famille tey dafa am kuy ngénte dama bëgg ñu dem nga ne ko demal yow sama frère day ngénte dama bëgg ñu dem demal yow sama sœur day ngénte dama bëgg ñu dem demal yow sunu kër dafa am nangam dama bëgg ñu dem demal yow maanaa yow doo ànd ak moom ci benn mbégteem doo ànd ak moom ci benn naqar sama nangam dafa gaañu dañu war a jaale ji demal yow loolu góor gu koy def wala jigéen ju koy def da nga yëg ne yaa ngi ci njuumte lu rëy rëy rëy rëy ndax ñaar ñuy ànd dañoo war a bokk mbégte yi waaye bokk naqar yi su ndaw si amee mbégte nga bég bu amee naqar nga am naqar bu sa bëgg jëkkër amee mbégte nga bég bu amee naqar nga am naqar loolu moom mooy saxal sëy wa hada ayuha al ahbab yéen doomu ndey yi mbokk julit yi loolu dañ ko war a fedd li mu akkadun baynal mar'i wa zawji loolu dañ koy dëgëral diggante nit ak soxnaam diggante soxna ak jëkkëram saxaaba bu mag boobu tudd abu darda radiallahu anhu wa arda danaan wax soxnaam ngalawaay boo ma gisee ma mer bégloo ma soo meree ma bégloo la noonu mooy àdduna àdduna mooy góor day mer wàcc ànd ak meram ñëw ci kër gi gis ku dindi mer bi nga ñëw ci kër gi gis soxna si mer nga dindi mer bi noonu àdduna waaye kenn ku ne ci ñoom bu dee kii day dof doflu gisul lu may def day jaay nangam dina xam ne maako day day dof doflu dina xam ne maako gën a dof wala day jaay dafa am rob dina xam ne maako ëpp rob kër gu ñaari dof nekk day ku fa yendu dooñ kii day dof dof lu maako gën a dof ñuy ñaari dof yu yendu ci kër ku fa yendu de wala nga fanaan fa doo ndékki doo reex doo añ ndax ñaari dofa fa dëkk kon nag dof dof lu kenn du ko jaay nit li ñu war a jaayante mooy nite kii de day dof dof lu waaye dina xam ne man nit laa du ma ko topp ci nim mel loolu la Abu Darda wax soxnaam waaye waaye boo ma séenee ma mer kontaan loo ma waaye bis boo meree man dinaa la kontaan loo mu nekk buum gu dëgër gu war a jokkale ñaari koñ yi muy ku góor ki ak ku jigéen ki su kii xëccee nga yolomal moom bu xëccee yow soo xëccee moom mu yolomal buum mu ngi mel nekk wëñ sëy mu ngi mel ne wëñ sëy mu ngi mel ne buum wala mu ngi mel ne kawar su kii jàppee benn cat kii jàpp benn cat ñu koy xëccoo ñoom ñaar bu kenn ku nekk xëccee mu dang wëñ bi mën naa dagg wala kawar gi mën naa dagg ci digg bi wala buum bi dagg ci digg bi kon lan moo tax buum gi du wat du dagg mooy bu kii xëccee mu dëgër yow nooyalal moom soo xëccee mu dëgër moom mu nooyal loolu mooy sëy buum gi du dagg mukk buum gi du mës a dagg ndax boo ko dangalee mu nooyal ko boo ko dangalee yow moom mu nooyal ko soo ko nooyalee yow moom mu dangal ko loolu moom mooy sëy ñaari wàll yi loolu lañ war a xam loolu moo war ci kenn ku nekk ci ñoom mu bëgg moroomam mbokkook moom bëgg chaque jour muy bëgg di kontaan ndax yonent alayhi salaatu wasalaam kaana daiman xaashan baashan daahikan bassooma yonent alayhi salaatu wasalaam bokk na ci li góor ñi mën a roy ci moom ku fireeku la woon kanam gu leer reekat muuñkat foo ko gis kanam gaa ngi leer ubbeeku bëñ yaa ngi weex mu ngi muuñ mu ngi ree wal mu'minu hayyinun layyinun sahlun jullit day yomb jullit day lewet jullit day nooy hayyinun layyinun saxlun jullit day nooy yomb lewet zaluul munqood jullit day wàcc jullit day suufe lii nag mooy yoon woo xam ne bu ci sëy jaaree am barke góor bu ci jaaree sëyam réussir bu ci jigéen jaaree sëyam réussir laayante biir ku nekk yéene sa morom yiw bëggal ko mbaax ndax addiin an nasiha wala budda fiha min liin wa rifq neena diine day laayante biir la te sëy moom li ci munta ñàkk mooy suufe ak lewet benn jigéen da doon sëy yaayam di ko dénk ne ko doom mu ne ko ah mu ne ko oyofal ne mbax na jegeel ne dal mu ne ko lan mooy oyofal na mbax na mu ne ko mbax na lu ko bàyyi ci bopp oyof mbokk yi mbax na bu doon bu doon peese 10 kilos kenn du ko teg ci bopp musóor bu doon peese kaala bu doon nekk 10 kilos kenn du ko muuroo kon mbax ne kaala li leen bàyyi ci bopp mooy oyof kon jigéen day oyof jege borom këram comme ay dàllam bu ne bërët li muy njëkk a def mooy ana samay dàll loolu la ab jullit di mel bu jigéen ak bu góor yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na yërëm leen jigéen ñi yéen góor ñi kon dana war ci ñaar ñépp ñu wattu seen bopp comme ni ko yàlla dénkaane fa saalihaat qaanitaat xaafizaatun lil gayb bima xafizahu llah bima xafiza allah jigéen ñu baax ñi nga xam ne dañuy taxaw ci jaamu yàlla wattu seen bopp ci kumpa ca la leen yàlla dénk ñooñu ñooy jigéen ñu baax ñi ci suratu nisa aya 34 mu ne maanaa jigéen ñu baax ñi mooy dañoo mat su seen jëkkër fàddoo ñu wattu seen bopp wattul ko alalam waaye sàmmal ko seen bopp wattul ko njaboot gi abi said alxudri radiallahu anhu nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi gën a bon ci yàlla ci nit ñi yowmal qiyaam mooy góor gu fanaanoo soxnaam ba pare xëy di ko nettali nit ñi abu zar nee na yonent bi nee na góor gi moo gën a yées ci àdduna moo gën a bon ku fanaanoog jigéen ba pare xëy dem fi ngay liggéeyee di nettali li nga séq ak sa soxna kon mbon weesuwul loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci xadis beneen xadisu asma bintu yazid du nee na amaana góor dina fanaanoog soxnaam wala jigéen fanaanoog borom këram ba pare xëy di ko nettali nee na ñooñu de kenn gënu leen a yées ci àdduna daw si fanaanoog borom ba këram ba pare xëy dem fi muy liggéey wala xëy dem marché di nettali nu mu nekkee woon ak moom kon mbokk jullit yi lii mooy sunu dars bu mujj muy nasaihum mustaraka ay ndénkaane yoo xam ne ñaari wàll yi ñoo ko bokk ci góor ñi ak jigéen ñi ndénkaane yi bàyyikowul ci man mu ngi bàyyikoo ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam moom mi yàlla yónni woon pour mu ñëw jàngal ñu nu ñuy sëye kon góor ñi bu ñu bëggee seeni sëy seen foyer seen ànd ak seeni soxna baax dañu jël ndénkaane yonent bi ndax yonent bi mooy modèle ci lépp jigéen ñi bu nu bëggee seen sëy baax nañu def yonent bi royukaay yi ndax moom la yàlla yónni woon nañu jàngal sunu diine mun nañu xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla te sëy ci jaamu yàlla la bokk kon darsa bangoog yàlla na yàlla def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.